et il n'arrête pas de le lire des fois mu ne ma nabu may leen ma mami ma takk ko. waaw maa gën a adoré loolu yëpp am problème mën nañ koo gérer ay candidature la dañ koy gérer. Mm-hmm. loolu dara man mën naa organiser élection loolu dara incha allah. Mm-hmm. bés bi le jour nabu ñëw na ci eh, ay lii allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salim intervention militaire au Niger. CEDEAO na set pas yéen tee ngeen a séddee. organisation bi dafa décider déployer ay forces am en attente nee na pour restaurer l'ordre démocratique mhm. euh, tiitaange Wagner bi journal wax na ca inquiétude jihadiste bi journal ba wax na ca Burkina Faso ak Mali yëgal nañu leen itam journal ba noonu la ñu ko fësalee ci suba gi. Mhm. ayca ñu dem ci beneen ëpp yéen kaay ginnaaw euh, euh, li nga xam ne mooy bés bi le jour direct news ñëw ci grève bu xiifal fii ci Sénégal mu ne ndax lii moyen bu efficace la pour. ñi nekk ci kaso gi mën a génn ci kaso gi. journal bi mhm. dafa sampum laaj day laaj. nee na Wade Abdoulaye Bathily ci histoire Karim Wade ñoom ñëpp jot nañu am trajectoire bii mooy observer grève de la faim. présentement ñu ne Ousmane Sonko est depuis plus de dix jours en diète de même que bon nombre de ses militants. Mhm. mu ne en plus du maire de Ziguinchor on peut citer Nit Dof ma nga ca biir Modou Dieye membre Pastef ma nga ca biir Bayna Gueye. membre bu nitu dëgg des valeurs ma nga ca biir Mouhamadou Ndiaye Sonko ma nga ca biir bu Pastef Baara Ndiaye itam ma nga ca biir et mooy ne lim ba jeexagul grève de la faim bii nag mu ni euh, réussir na bu baax a baax kii di Pape Alé Niang parce que mhm. libéré nañu ko ci à trois reprises na ëppul est-ce que du woon deux wala trois la woon ci histoire mu ne je préfère mourir qu'arrêter la grève de la faim Hannibal loolu la wax ma deew ma ko gënal ces grévistes de la faim mu ne recevront t un écho favorable de la part des autorités qui semblent insensibles à leur complainte loolu itam laaj la boo xamante ne journal ba da koo samp boo gëstoo xool soo ko yaa ngi seen tamit loolu la wax kan si Serigne Bara Ndiaye démb maa ngi dégg am ko woote euh, Walfadjri ou je je pense c'était mhm. avant-hier di expliquer ni euh, que ni moom seetal nañ ko xool nañ ay téléphone am gisuñ ci dara loo xam ne mën nañ mhm. ko takkal waaye procureur moo moo sàkku téye ko. Mhm. nee nag moom fii màggal Tuubaa bu ñu ko bàyyiwul. Mhm. nee na màggal Tuubaa daf fay dem ànd ak bakkan. Mhm. ànd ak ay mbokkam dem màggali wa ilaa mu dem mu dem Touba rek bañ a yóbbaale bakkan waaye du arrêté grève fi nga xam ne ci la nekk. alors nañu ko libéré man sama soppee la wax dëgg yàlla moom damay wax sax soppee soppe deux ans la nañu ko bàyyi. mu ñibbi. mu ñibbi këram loolu moo moo moo moo gën a rafet voilà mhm. mhm. waa taxawu danoo insurgé wu ba pare yokk ci di di dénoncer wu situation CEDEAO ma ngi it ci xëtu yéenekaay bu direct news enquête ñëw ci Yewwi Askan Wi mu ne dafa volé en éclat tasaaroo na mu ne à l'épreuve de la euh, réelle politique mhm. noonu la ko journal bi euh, titré tey ci suba gi 24 euh, heures ñëw ci entretien ak Amadou Deme sur la situation du pays le parti socialiste la candidature de Benno Bokk Yakaar Ousmane Sonko journal bi nee na c'est le moment de vérité Barth furie barre contre Pastef journal bi itam dikk na ca yoor yoor moo ñëw ci li nga doon wax tey si suba docteur mhm. Babacar Niang mii bu suma assistance mu ne conséquence de la diète du leader de Pastef je cite entre guillemets moom docteur Babacar Niang moo ne état bu Sénégal dina nekk responsable ci lépp luy dali ji Ousmane Sonko ëllëg mhm. ok journal ba noonu la ko waxee ah Adama Aïdara Kanté portrait d'une journaliste culte elle moom c'est ma sœur vraiment et euh, je lui fais un gros bisou en passant. Euh, mhm. moom euh, Adama Aïdara. ayca ñu buux dem ci euh, beneen ëpp yéenekaay ginnaaw yor yor critique ñëw ci Khalifa Sall sur le départ pour la présidentielle de 2024 journal bi mu ne la marche n'est-elle pas haute pour Khalifa Sall est-ce que kawewul torop ndax mën na koo yéeg. Ah, ko mënta yéeg it. est-ce que duñ ko tegal banque loolu yëpp mën naa ne. yóotu waa bu Benno Bokk Yaakaar pardon. ma ne Mbadou mu yóotu. waaw. Oh, ah, ah, ah man Nabou Cor xam nga yaa fi indiwaat histoire wu. histoire <laughs> Tungune mañ takkal jabar xam nga yaa ngi indiwaat coow. Nabou Cor Tungune bi dana koo takkal jabar muural ko jabar ji jabar ji sëy si. Mm-hmm. ñu indi ko ci biir néeg bi yéeg jab yéegal jabar ja ca kaw lal ba. Mm-hmm. waaw ban menuisier moo daaj bii la lal loolu mooy laaj wi. lu tax mu def loolu. ah lu tax mu def lii. lu ñaaw. guddi gi bàjjen yi ñëpp toog ci biti di xaar guddi gi yëpp hoo rek li ñuy def ñu naan waaye yow kii dina rey sunu doom ji di ah yow kii yu xom yi tar mu naan xool jàppee ko noonu nabu koor ba fajar jot. bàjjee ubbi néeg bi fekk moom ndeysaan dugg néeg ma nga ñaqatooy xepp xepp seet ba moom fu mu doon sàngoon na sërëm ma ngay nelaw mu ne leen man de jotumaa def dara bàjjen guddi gi yëpp damaa fanaanee tëb pour yéeg guddi gi yëpp nii laa dëkkee hoo hoo te boobu ba tey jotumaa yéeg ñu ne ko yërëm yëkkati ak ci kaw la ba dafa léegi defal la ngay def <laughs> mu ngi noonu kon nag xam nga loolu yow na bu ko da ngaa bëgg indi waat problème dafa mel nag foofu du problème bi du ci foofu kese la féete ndax mhm. choix candidat benn Bokk Yaakaar ak position parti socialiste bi Yaya Diallo mu ne dafa rabattre le taquet à à Alimane journal bi dina ko xamal tey L'As Quotidien ñëw ci intervention militaire bi mu ne la CEDEAO dafa activer sa force d'attente beneen bi mooy xoolal Barthélémy Diaz sorti de Yewwi Askan Wi recours des députés de Pastef attaque mu ne Barthélémy Diaz dafa qualifié militant wu Pastef yi ne leen yéen ay traiteur ngeen bu ngeen bëggee xam définition traiteur sax moom defe naa joxe na ko de wala dafa ne ñu dem ci dictionnaire bi xamatuma damay laaj le mandat mu ne banni et rejeté après cinquante ans de vie politique dafa ñëw ci xalifa euh, Ababacar Sall par un par un sournois des antisystèmes noonu la ko journal bi titré beneen bi ci suuf Barthélémy Dias sur les uns eh eh kaay kaay. eh kaay bàyyi ko bàyyi ko. yow laay waxal faxa faxa kaay ni eh, eh. wa lala looy def fii. da doon xool si bosam. ah yow faxa faxa. dafa doon xool si. non man yow Nabou Cor la fi indi nga naan ay Mansour laa doon. faxa faxa moytu ma. tey damaa naqari déedéet moytu ma ah. gën studio bu ko xool metti. Barthélémy Dias nee na sur les uns Nabou virgule. Mhm. les autres virgule. et cetera mu ne le dialogue à la place du gatsa gatsa noonee la ko journal ba euh, duppee euh, tey ci suba gi ay ca ginnaaw le mandat ñu dem ci beneen euh, yéenekaay la regard mu ñëw ci face à la presse le maire de Dakar mu ni euh, monte sur ses grands chevaux Barthélémy Diaz ouvre le feu wala ouvre encore la feu kay moom kay ouvre le feu waaw waaw yàlla baax na éviction mu ne c'est quelqu'un boo xamante ne dañ koo dàq dañu ko éjecté mu ne waaye Boudary mooy ku gedd hmm. bureau municipal bi mu ne ci bureau municipal bi du du du jardin d'enfant hmm. boo xamante ne xale dañ fay nekk di jouer ay pâte à modeler ak di way ay je suis ma place les la table Mm. te yokk ci conseil municipal bi itam nekkul garderie d'enfants nekkuñu fi pour di surveiller ay xale. Mm-hmm. yaa ngi dégg mu ne qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a sorti ce torchon de communiqué kan moo ko génne. Mm-hmm. comment un locataire bëgg dàq ki nga xamante ne moom mooy propriétaire bi te yow locataire kese nga bëgg dàq borom kër gi. nga ne kii lu mu wax. kanam nga ne Barthélemy nee na bu ñu bëggee xam li trahison ñu dem xool ban livre. dictionnaire. Hmm. loolu la waaw am na ay mots yu mu wax ne de il ñu ko ci dictionnaire bi waaye ah. je pense que joxe na définition traître tamit je crois. Mm, baax na ah moom traître kañ ñëpp xam nañ ko mooy diggante euh, leeral leen ma euh, Jésus ak lan Juda mooy lan traître du genre yooyu. Ah, dimbali leen ma internet yi. Ah, dee leen ma dimbali balaa may juum. ah traître du du du du. laaja Moussa xam. du yooyu noonu. ah laaja Moussa Lamy. ah laaja Moussa Lamy du du du du xisa yi fi yi fi oustaz wax léegi nii. traître mooy Mamy Samb ak Nabakoor bëggante wax ay waxi biir néeg ma indi ko ci ci place publique. ci penc mi ci penc mi. du dëgg. Hmm. Hmm? ah traître mooy kuy wor rek. ku wor hmm. kay mooy traître nag. intervention militaire bi ci Niger Thierno Alassane Sall wax na ca dafay woowee euh, woote à la mobilisation mu ne pour la paix. ñu ñu dox ci jàmm te euh, yëngu ci ci jàmm. ayca. beneen euh, yéen i kaay le soleil c'est déjà aux prises. Euh, avec les putschistes du Niger journal bi mu ne ce n'est c'est une affaire pas si mhm. simple et c'est vrai quand même ce n'est pas une affaire simple l'opposition se na ci te suuf les échos ñëw ci mbiri maire bu Thiaroye sur mer bi parquet général bi dafa viser maître euh, El Hadji Amadou Mamadou Ndiaye mu ne mhm. à l'origine c'est une affaire de faux baux présumés moom maître euh, El El Mamadou Ndiaye dañ ko suspend pour une durée indéterminée par le conseil de l'ordre ñoom ñoo def li ni mel Barthélémy Dias na ma ngay solde ay comptam mu ne ci biir Yewwi il y les uns il y a les autres et il y a les et cetera ayca ñu dem ci beneen bi yéenekaay <coughs> ngeen baal ma ñëw ci société nationale en danger mu ne comment la SIRN a été sauvée euh, du naufrage beneen bi mooy trahison politique au sein de Yewwi journal bi nee na Barth convaincrewul ginnaaw conférence de presse bi nga xamante ne amal na ko démb ak wéy taskatu xibaar yi libération ñëw ci ginnaaw suspension par l'ordre des avocats ñëw na ci kawu El Mamadou Ndiaye mi nga xamante ne teg nañu ko loxo waaye itam Barth ki se défoule sur Pastef waaye se défoule également sur Yewwi Askan Wi lii quotidien même chose taxawu exclu de Askan Wi sujet à des calomnies le journal emprunte un peu ou embouche la même trompette mu ne Barthélémy Diaz sans de bois li mu war a wax daal wax na ko curriment ak ay vocabulaire boppam l'indépendant ñëw ci exclu de la coalition et accusé de traître taxawu Sénégal dafa désingué Yewwi Askan Wi euh, ci euh, leeral li ñu ko mën a indil ci xët bu njëkk bi foo ñëw ci exclusion bu taxawu ci biir Yewwi mu ne Barthe dafa dégg ba pare tiré ci Ousmane Sonko journal ba noonee la ko titré Euh, ñu dem ci beneen ëpp euh, yéenekaay dissolution parti radiation Sonko des listes électorales l'observateur mu ne Pastef c'est la difficile bataille des recours waaye ca et wa yeewi itam comme Barth fait l'actualité de ce matin le torchon et les charognards journal bi ne ils font pitié entre guillemets je pense que ce sont les propos de euh, ay Diaz ayca Walf Quotidien ñëw ci réduite à sa plus simple expression implosion de Yewwi Askan Wi mu ne Macky euh, dynamite l'opposition waa ma Mm-hmm. Nabukoor yow laa déggoon nga doon laaj. laaj wii man. ah du yow. léegi yow ko loo way li may wax. ah waaw waxal. yow xam nga da a laaj. yow moom laaj yow yaay major de promotion. Hmm? na bu mën ngaa laaj torop torop torop yow laa déggoon ngay laaj ba xam ndax moom président de la république Macky Sall réussirul tasaare opposition bi loolu du woon yow. mën na nekk de. doon yow man la man la yàlla waa Petit Déj. ah waa Petit <laughs> Salma la. te li ma la xamee boo bëggee jël yëf yi duur ko keneen yow amoo ci benn problème yow mi yàqu doon laaj. Salma la. mu Petit Déj Walf nag nee na. la. ñoom la Walf nag nee na dafa mel ni Macky dafa dynamité opposition euh, sénégalaise. Mhm. Euh, waajaa ngi Ousmane Sonko mu ne au tapis journal ba noonu la ko euh, titré ci combat politique bi nga xam ne moom lay a Sud Quotidien impact du non paiement de l'amende sur la participation de Karim et Khalifa à la présidentielle. Mhm. journal bi mu ne les experts waxatuñu fu mu nekk nii le même langage ku ci nekk daal ak na koy na koy jàngateeg na nga koy interpréter témoin quotidien reculons reculer leen moo gën du dëkk tribune ñëw ci Khalifa Sall utilise Sonko et l'envoie à la guillotine noonu la ko journal ba titré waaye bu nu fàtte itam na bu ci wàllu immigration irrégulière trente sénégalais yi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakken ci weeru sulet bi ci géej gi yàlla yàlla yërëm leen te xare leen àjjana gën a kawe te may seen jabo euh, euh, xol bi nu ko mënee muñ Babacar Ba sur la justice mm-hmm. majestueuse Euh, magistrature magistral magistrat le titre de deux minutes pour lire l'essentiel euh, Vox Populi lii lu mu doon un autre drame à l'immigration à la plage de Ndépé 2 à Rufisque journal bi nee na police bi dafa tiire ci ay clandestins résultat Mbaye mi bal ba da koo jam ca baat mu ñàkk bakkanam tué par balle au cou récit candidat wu malheureux au voyage bi nag mu ngi ci biir journal bii di euh, Vox Populi mhm. Barthélémy Diaz ma nga ca CEDEAO ma nga ca jëndal kon euh, yéenekaay boobu ñu dem nag léegi ca làmb ja euh, mbëru Nabou Cor baa ngi maa la wax li xale Pikine baa ngi nii mhm. amaayee mu ngi nii mhm. ki nga xam ne tuwarkal la tuwarkal la takkul li net bàkkuwul demul pale ba tax Nabou Cor léegi da ko élire def ko le meilleur lutteur de sa génération ndax moom la faral. c'est le lutteur du peuple. sunu làmb nee na CNG dafa débouté face ba pare reste catégorique xanaa kontaan nga Gris Ama dañu ko maintenir le premier octobre lañu ko dee bëree bëre ko ci lu neex bëre ko ci jom bëre ko ci fit bëre ko ci fulla bëre ko ci fayda. Mhm. waa Fass war a jàkkaarloo. ak waa Pikine ma nga dëkk waa xanaa na bu koor bu boobaa le premier octobre ca tàkkusaan bu Hippo Ngane nekkee ca làng ba naan ayca ayca ayca ayca ayca dana la fekk tribune ba ngay supporter Ama waaw bu baax nabu xanaa kon bu boobaa le premier octobre la ñuy door a gis nag nga sañ sa tagalu dem ca arène nationale wala bu baax kon yow arène nationale ba nga dëkkee Pikine ba tey sa tànk mosu faa dëkk hmm. Ama Baldé mooy tax nga dugg biir arène nationale tuwaarkal la Nabou Cor bu la yàlla mayee ndam nooy jubilé. ah dinaa kontaan ndax damay ànd ak peuple bi di jubilé looloo ci gën a neex. peuple ba eh yamal pikin laa la wax nga naan peuple di élargir. ba <laughs> ma lay tàccu rek nga fekkee ñaari tàkk. te kaay moo wax la di gën a grave. yow doo yemale ca fecc. ci man mami nit ci personnalité laa lay nga ay détails yu ndaw da ngay wone sa vraie personnalité te loolu day tax nit ñi di la bëgg des fois nit bañ la bëgg. bañ sax intéressé wu ci li ngay def mais de par ta wala ak li ngay dégagé mu jaaree fa bëgg la loolu dafa ma dal ci ama ma yoon nekku ci mu lay supporté ma yoon nekku ci te daal sa fecc ci raas gis ak cëgin ma lay xaj tàccu la nii rek ngay zibilé di mhm. kontaanaale mu naan ay peuple bi Pikine ngay wax pikin Pikine ma nga dëkk waa Pikine yéen yéen ko faral ancien waa des waa Fass nag yow léegi waa Fass nag loolu leen bëgg a wax kon comprendre kon Fass bokkuñu ci peuple bi ah xanaa xamoon làmb ji sax système la Hmm. <laughs> yow xam nga kañ nga xam làmb yow daawoo seetaan làmb yaa hmm? ko. léegi nag moom rek lay topp. ancien roi des arènes bii di Yékini encore <laughs> mii nag mooy référence journal ba dafa dellu si waat ci parcours am tubaarkàlla tubaarkàlla macha allah Yékini moom itam def na lu ne ci làmb ji na ko. tàkkusaan bu ne am na ko ci làmb ji ay ca ñu xool football bi wiw sport eh, Saudi Pro League pardon Edouard Mendy mu ne à l'heure du tournant noonu la ñu ko journal ba xamale ñu xool stade ay ca stade Euh, ñëw ci Arabie Saoudite après un mercato record journal bi mu ne euh, championnat bi dafa débuter sous les regards du monde et on voit l'affiche de grands joueurs euh, pour tous les amateurs de football ayca ñu jeexal ak record ñëw ci Chelsea très attendu en première ligue mu ne mhm. Jackson est le lourd héritage de Mané waaw seere ko rek du dëgg beneen bi mooy Tottenham ñëw na ci Pape Matar mu ne au Sénégal on m'appelle Roberto Roberto Carlos ak yeneen yoo xamante ne mu ngi ci biir waaye nabu nag mënuma jeexal a jeexal te mm-hmm. waxuma ci basketball la balle orange wax itam ci direction technique nationale Moustapha Gueye mii démissionné na rendre na tablier bi bu mm-hmm. jugee ñu seet ñu seet ñu seet tablier bi. Mm-hmm. ku nu koy jox rek. waaw mais parce que euh, parce que aussi euh, gëj na def ay résultats mami. il faut ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu indi ay. Euh, Moustapha Gueye li mu li mu tontu Ciara dégg ko. la leen loolu il faut mu yónnee la extrait bi nga seetaan ngir yàlla sarax ma ci rek may ma ci nii tuuti. déedéet naa la ko yónnee nga seetaan ko. moo la gën a. naa la ko yónnee nga seetaan ko. d' accord de. comme tu yaay xool ah, dinaa la ko yónnee nga seetaan ko. léegi nag comme Moustapha dem na. dañ ma jox tablier bi rek. Hmm. gënu rafet. na bu damaa xiif nii rek mais bu sumay bët leeree nii mën naa gérer basket nice de. taa nag basket ñu njool ñi ñoo ko gën a mën comme yow da nga njool da koy mën du dëgg. man ngay man ngay très élancé macha ah. yow yow yow ah, kii man sóor. yow man ngay man man man tax tax tax tax frustré wu ma la baal ma baal ma je retire mes. na bu dëgg bëgg waxal la li ma la xamal. Mm-hmm. Mm-hmm. retiré rocci. je retire. na set na set. je retire mais. ok waxal ñu jox ma tablier bi. Mm, nañ la jox tablier bi. wax maa ko yelloo. yaa ko moom. maa mën basket. yaa mën yàpp doole. maa mën a diviser. maa la ko maa mën a conseiller. laa ilaa. wuyu ma xool ma. Mm-hmm. yokk ci maa mën a weekend. yaa mën a weekend. ba altine taxaw taxaw bul dem. laa ilaa bul dem bul dem kaay da nga gaaw ci tàggoo tey la àjjuma ñëwal ñëwal. madame Sané colonel nee na la <laughs> nee na ma waxal colonel bi du ko def dara incha allah nee na moom yi ñun rek lay topp yow rek la. colonel bi di topp ah. moom ma nag jotul ñu ay xaritu policier ak ay gendarme. nabu boo bëggee xaritoo la ne man ci police laa juddoo fa laa màggee yaroo sama yaay alkaati la woon xanaa déggoo li ma la wax. xaritoo la ñoom yow amoo expérience bi man am naa expérience. jarul ñuy am ay xaritu RG ay jaru ko maanaam ñuy dugg ci ci kii kii di ma information ma ne. Hmm. ay xaritu militaire. ay homme non va va va mami yow daawoo daw deuxième de. am ah, na fii kay benn tapet am ci télé bi muy man. Hmm, man damay affiche indu dawal ka booy ba ñebe ma leen def. nit ku bon naa nag euh, bi elle s'appelle Damila Guèye ñu ngi bu baax di ko ziar. ñu naan la bu baax Damila aussi en passant. ñu ngi baax la ziar leen majesté mu lakkale man man dama yot xaritu xaritu policier bu ah. amee militaire colonel lu mënti doon commentaire yi. Ah. def ma signe rek man xaritu homme de tenue lay ut. nga xaritu homme de waaw wuyu ma kaay ma wax la. bu la neexee sax mën nga dépasser quatre kër yàlla na ci yàlla may jëkkër jëkkëru général ba jëkkëru colonel. Hmm. ñoo ñoo baax eh, nag. waaw yow xaaral ma déedéet déedéet déedet kaay kaay kaay yàlla may borom waaw léegi kaay kaay ñu waxtaan kaay kaay taxawal rek dama bëgg waxtaan bi neex piano piano loo ci jëkkëree dama laa wax damaa soxla jëkkëru militaire wala piano. wala wala taxawal taxawal.